lay maa ngi lay fay bàyyi julli bu baax a baax. naka julli gi. waaye jàll na ci jàmm ak salaam. dégg naa alhamdulilah defal bagaar. bon jot jot naa ci laal tuuti rek. <laughs> baal maa ko ci julli baal naa la baal maa ko. yàlla boole jéggal. ñu fekk ko ay yu bàyyi bàyyi. bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan ci wasaare lamb. mbokk internet wasaare ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen bégg bu baax a baax. di leen baalu àq te di leen baal àq. li fi jot a jaar yëpp ñoo leen ci jéggalu bu baax a baax di leen ñaan ngeen jéggal ñu Baye Adama maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñooñu seetaan ci Wassare Lamb Wassare TV di leen wax ne nag euh, bu leen fàttee di bës cloche bi di leen abonné si Wassare Lamb lépp li nga xamante ni dafay jaar rek da ngeen ciy jot bu baax a baax a baax Baye ji lii noonu la demee. noonu la demee Ousseyn laa ci àndal tey sama waa ji sama xarit bi nga xamante ne ndeysaan des fois su ma demee fii mu dem fële xam ni rek lépp mbooloo la te it wasaare am nañ benn entente boo xamante ne am nañ ko ci suñu biir ñu fas yéene liggéey aussi tey damaa bëggoon ñu jukkee ci xët bi nga xamante ni waxtaan. ci li mhm. jëm ci. làmb jàngat gi tey maak Ousseynou ñoo koy def. sëñ Basirou daa mel ne dama ko xaw a kii côté waa. waaw da nga koy ràññee. waaw tey day loolu dama ko poussé côté rek xam naa ni dinaa ko waat mais tey Ousseynou laa ci bëgg a àndal. ñu waxtaan ci làmb jàngat ko ci ci li nga xamante ni moo jot a xew ci làmb. Mhm. Ousseynou ñuy rendre hommage ñi nga xamante ne dañ fee jóge mhm. ci làmb ku ci mel ne suñu papa Doudou Yaay Kati. nga xamante ni guy gu mag la woon ci làmb. icône la woon tam boo duggee bu gisee ci làmb da ngay xam ni kii ndaysaan bu woyee rek. bu neen dara rek sa xol sedd. ndaysaan bilaay noonu nga ko gisee léegi ku mel ni Doudou Yaye Katy ak ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci làmb. Mm-hmm. démb maa ngi koy waxtaan ci jàngat bi ma def euh, muy mel ni Papa ja waaye bii dañoo bëgg ñu waxtaan ci ñaari mbër. Mm-hmm. ci mel ni Zil Balde Junior ak ki nga xamante ni mooy Doudou Yaye ak ki nga xamante ni mooy Papa ja ak ñenn ñi nga xamante ne bokkoon nañ ci làmb ñu jékki-jékki gisatul leen liñ bëgg a waxtaanee mooy mbokk yi ku ci nekk tawatam àdduna dégg nañ ko ku ci nekk lancé nañ appel pour ñu jàppale leen mais ba tey yàlla suñu borom nag moom moo yor dernière décision bi comme ni ma ko waxee li gën rek suñu borom moo koy def waaye dafa jot ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk làmb ñun ñi nga xamante ni ñoo ŋànk làmb di yëkkati doo di xàccandoo di dóorandoo rafet na bu ñu amee koo xamante ni dafa nekk ci làmb tawat yaram bi sutante waa làmb jàppale ko surtout mais Ouzin loolu nan nga ko gisee. Baye Djili affaire boobu nekk na lu xaw doy waar ndax boo xoolee képp ku bokk ci làmb su tawatee rek ñu nañ ko ketal. Hmm. képp koo xamante nii ci monde làmb nga bokk su tawatee it foog ñu ketal ko loolu xaw na ma jaaxal tuuti ndax waroon nañoo mën a euh, jël suñu matuwaay ba nga xamante ni nii. Hmm. waroon nañoo ubbi ay ay ay. genre association la. Hmm. wala boog genre je sais pas nan ko la ñu mën a tuddee mutuelle de santé waaw. Hmm. ba boo ci feebaree war nañ la mën a taxaw te kenn du yëg. Hmm. mais mbër moo xamante ne day fay ko ay million wala koo xamante ni daa bokk ci làmb di di gagne pain ci làmb. Hmm. saa bu feebaree ñëpp yëg ko ku ci mel ni Papa Boy Bambara ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Hmm. defe naa ne war nañ cee mën a jël taxawaay boo xamante ni nii képp koo xamante ne feebar na ci ñu ci bari mën nañ koo bañ a yëg wala mën nañ koo bañ a jàllale ci presse bi. faj la te kenn du yëg mais dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar. ku ci mel ni Jules Baldé Junior boo xoolee feebar bi jël na temps. yaa gën a voyagé na fi mais pour mu dem faju ji rek daanaka ketal nañ ko ñëpp jot nañ ci man loolu rafetluwuma ko gannaaw nag lépp ci yàlla la mm. kuy dund ak dee yépp ci loxo yàlla nekk mm. mais ñun waroon nañoo mën a am loo xamante ni xoolu ci jour yi ku ci feebar dañ lay dem faj la ñibbisiwaat même pas kii nga continuer sa activité mm. mais mbër bu ci feebar boo xefee sa kay fa lay jaaya dog boo xoolee ku ci mel ni kaw si maa ngi koy nuyu bu baax a baax bi mu fi feebar ba léegi yaakaar naa kay foofu la yem moo ngi débrouillé pour dellu si waat waaye xaw a metti dafa ay de santé yoo xamante ni bépp bu ñu feebaree waroon nañoo mën a dem foofu taxawu leen war nañoo mën a defaat làmb daal ndax làmb ñoo koy xeex mais daal ba léegi des na des na daal bàyyi ji li. li ngay wax ni euh, doguma la euh, mais dafa am loo xamante ne dama bëgg ñu gën ci taxaw seetlu. Mhm. muy ñi nga ñi njëkk ci làmb. nga xamante ni bi ñuy dugg si ci làmb di bëri dra drapo Sénégal présenté nañ ko fu nekk fu nekk dem nañ défendre li nga xamante ne mooy couleur réew mi. ñu commencé ko ko suñu papa booy Bambara. Mhm. suñu papa Mbaye Guèye ak ki nga xamante ne mooy Balla Gaye numéro ak mhm. ñeneen ñi nga xamante Balla Gaye numéro 1 mhm. ak ñeneen ñi nga xamante ni bokk nañ ci làmb nekk ay mag seen yaram sutante mu am loo xamante ni cër boo xamante ne waa làmb war nañ ko mun a delloo ñooñu. waaye chaque jour dangay dégg ñu du ci waxtaan diwkat jagadi dina diwkat feebar na diwkat te nag wolof daf ne bu bu bu bu bu yàpp yëpp meloon ni res kon paaka du ci am yoon. Mm. yaakaar naa ne kenn suwetewul bu feebar toog ci ci télé bi naan damaa feebar kaay leen jàppale ma ku sañoon boo feebaree yàgg say mbokk yeneen ànd ñu faj la yëkkatiwaat la ba nga delluwaat say activité mais dafa doon loo xamante ne geste la boo xamante ne lu rafet la ndax boo bokkee ci làmb. war ngaa bokk ci dara waxuma la làmb sax mais Ouzin boo bokkee ci dara rek. Mhm. rafet na tey sa bopp di metti ñooñu. nga bokk loon nekk ci dara ñu jug jàpp ci. ñu ànd ak yow au bu dee benn bekk suukar la sax ñu ne ko ah lii kat ñun ñoo ko dajale indi la ko mhm. ngir jàppale ko am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci réew mi di def lu baax te bëgguñu ko leen tudd. Mhm. te bu ñuy defar dara dañuy dem. ba ci ki nga xamante ni loolu moom loolu concerné mm-hmm. ñu defal ko ko comme commencé ci ko laay suñu papa ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax dem na ci Boy Bambara defal ko yëkkatee teraangaam moo xam mu néew moo xam mu bari mu jàppalee ko ko te lu mel noonu dafa mel ni soxla nañ ko ci réew mi ndax père Mbaye Guèye soxla nañ ko euh, père Balla Guèye on soxla nañ ko père Boy Bambara soxla nañ ko yeneen mbër yi nga xamante ne dañoo feebar nekk ay mbër sax nekkoon ci activité ñoom it yittewoo nañ ko mais dafa mel ni jàppale boobu ba tey gisuñu ko ci làmb taxawaayu CNG bi gisuñu ñi nga xamante ne écurie yi parce que écurie bu ci nekk waroon naa mën a am loo xamante ne Ouzin war nañ cee mën a taxaw. mooy mu am kees boo xamante ni keesu équilibre la moo xam mu néew moo xam mu bari boo jagalee ñu yëkkati ci loolu yëkkati ko jox la mais ba tey duñ dégg lenn loo xamante ni làmb moo ko def ñu ñu di ci kontaan daal lu mel noonu. bàyyi ji soo tënkee wax ji yëpp. Hmm. mooy làmb moo organisé wul. parce que gis nga écurie yi écurie yi dañoo waroon am kees boo xamante ni képp ku ci feebar balaa kenn jug di ci def dara moom écurie ba ci njëkkee. Hmm. keneen kuy def ku nekk fekk ci leen si. mais làmb organisé wul mu wàllum écurie yi mu wàllum CNG mu wàllum habitué yeeg wàllum lépp dafa am loo xamante ni nii ñun dañ koy xëccu mais pour mu jëm kanam il faut ñu am benn taxawaay bu ñu ci am. làmb dafa des dafa des lu bëree bëri bëri bëri parce que dañ koy xool mbëri da ngay gis koo xamante ne da ci am combat sax préparé fu ko neex ñëw waxuma laa na nga tawat boo tawatee sa waa écurie duñu la tal mais bu fekkoon dafa am ay règlement comme ni ko ni nga ko waxee sànq ni ko waa Fass defee. teg ay règlement ku deful nangam doo def nangam ku deful nangam doo def nangam bu ko ñëpp déggoo woon xale yi dañ la jox cër ndax bàyyi ji dañoo war a taxaw seetlu ci lenn. Mhm. xale yi képp ku ci bëgg a nekk mbër lépp lu lay def mbër lu nekk yaa koy def. mais saa boo demee ba nekk mbër lépp lu lay yàqal lu nekk ci yow lay jóge mhm. te gis nga booy xëccu benn affaire ba jot ci danga koy sàmm ñun sénégalais wala ñun africain euh, mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu continuité. commencement lañ mën am mais amuñu fin. Mm-hmm. ba tax na gis nga yenn yi nii dañ ca war taxaw seetlu bu baax a baax. Mm-hmm. maanaam war ñuy jox ca ñenn ñi. ñenn ñi nga xamante ne surtout CNG moo jiite affaire woon na di mën a yooyu war na ko mën a mais CNG dama jàpp na dafa basé wu ci ba am combat ñëw ci digg géew bi ba pare pare na ci. baa ji gars yi dañoo war a taxawaat seetlu bu baax a baax a baax a baax. ki nga xamante ne dafa feebar tawat dañ ko war a taxaw comme ni nga ko waxee war nañoo mën bu dee. un franc la sax ñu def ko ci yow jàppale la. Ousseyn bokkuma la mais ku mel ni Père Boy Bambara. Mhm. tëraay bi dafa yàgg. Mhm. te gisuñu ba tey am nañ ci ñoo xamante ne nag certes ñu ngi dem di ko jàppale dégg nañ fa Balla Gaye 2 dégg nañ fa Luc Nicolaï dégg nañ fa yeneen mbër yoo xamante ne dem nañ te bëgguñu ko tudd seen tur. dëgg la mu wane ne ku ci nekk jàppee na ko suñu papa la woon. malgré ci làmb la bokk bokk ñu woon écrit daan naa bëri ay bërëb mais dama ciy jàpp li mu ci mën sama kéemtu laay kàttan. Mhm. léegi lan moo tax làmb chaque jour rek balaa ñu lay mën a jàppale rek nga wax ko ci média bi wala nga wax ba sonn wala nga ñaan ndimbal fu nekk ñu doog mën a ñëw jàppale la. bàyyi ji li dafa am lenn loo xamante ni dafa nekk ci làmb. Mhm. làmb dafa nekk loo xamante ni nii maanaam camp wu adversaire la adversaire mais nit ku tawat du question sama mbër la wala boog moo andi ki ma doon Mm-hmm. ay nit la yoo xamante ne dañoo war a mën a jàppalante suñ biir mm-hmm. ñun buñ jàppalante wu suñ biir keneen du jóge ci àll ba ñëw di ñu jàppale mm-hmm. dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk ci làmb woo ci di jàpp muy promoteur yi muy ñenn ci mbër yu mag yi mën naa ko lim ku ci mel ni Balla Gaye ku ci mel ni Modou ku ci mel ni Gris ñooñu da ngay dañoo nekk ña nga xamante ni képp ku feebar ci làmb wala képp nga xam ne am na ndog-ndog ci làmb ñoom dañ cee mën a ñëw def premier pas jëkk yi ndax ñeneen ñi leen seetaan mën a sawar ñëw di ci dox yenn yi parce que nag bul fàtte ne ñoom ñi may wax ni mbër yu mag yi bi ñuy doon mbër bu ndaw ñii fi nekk nii muy ay Père Balla Gaye booy Boy Bamba Mbaye Guèye jàpp nañ seen carrière ñii jàppee mooy dinañ gis mu bëri ñu ne xale bi bu ñu ko bàyyee xel wala bu ñu ko jàppalee dina dem kon defe naa ne ñooñu même bu ñu la yorul am na loo yëg ci ñoom geste bu rafet la bu noobul la yëg sa alal dem def ci parce qu'on sait jamais parce que boo xoolee ci ku mel ni Jules Baldé Junior bi ko lii dalee gis naa ñu bëri ñoo xam ne ci mbër yi jàpp nañ ci te defe naa ne bu ñu ko jàppale noonu social bi dina mën a daw seen biir ba képp ku ci ku ci dégg tawan nga dinañ mën a def avant ngay dem ci presse bi di taxaw di wax. Hmm. war nañ ci mën a teel def suñu doole ñi nga xamante ni ñoo ŋànk làmb balaa keneen ku bokk ci làmb ñoo di ci def dooleem. Hmm. waaw ji di ñu tolluwaat ci ñenn ñi nga xamante ni Ouzin ba tey euh, damay ñëw ci Zil Balde Junior hmm. ak ki nga xamante ni mooy euh, Papa Yade numéro 2. Zil Balde feebar na ci tëraay bu yàgg. depuis mu feebar ba ni mu tëddee ci tëraay bi Kéba Kanté rek la ñuy gis. Mm-hmm. muy ñëw di ko jàppale Kéba di ànd ak Pape Sarr di ànd ak képp fu mu xam mu ngi yëkkati te Kéba mu nga dëkk ba Almadi. Zil mm-hmm. euh, Balde Junior mu nga dëkk Pikine mais wane na ni ci làmb la bokk suma rakk la suma frère la lépp lu dal jooñu làmb dal na ma. mu jaral ko muy déplacé wu di dem ba pousse pousse bi nga xamante ni moom la doon toog moom moo ko jëndoon ci moyen boppam. ba bis bi nga xamante ni ci lay génn àdduna am na som boo xamante ni yëkkati woon na ko jox ko Pape Sarr ngir Abibulaay bu xëyee Zilbale Junior dem faju ju dem hôpital mhm. waaye yàlla suñu borom mu jëwul dogal loolu ñu mel noonu ci réew bi buñ leen amee ci suñu làmb lan lañ war a mën a doxale seen diggante suñu diggante ak ñoom bàyyi ji li ñu mel noonu ku ne bëgg na ko am ci la nga yëngu. Mhm. ku mel ñu mel noonu ay icône lañ da nga leen war a valoriser. Mhm. parce tout récemment gis naa ko mu bëgg affaire CNG bi mais pour man na def ndànk. Mhm. te kooku dañ ko war a sàmm moom mu Keba ndax du ci Jules Baldé Junior la njëkkee. am na ci yeneen ak yeneen yoo xam te ne bii rek a fës. mais gis nga ñu mel ñuy jàppale làmb soo ko amee da leen responsabilité boole leen ci biir làmb. ndax làmb dafa rafle loolu. làmb dafa bëgg ku ci ñëw di ci jàpp parce que dafa nekk sport te bu individuel la. sport bu individuel la il ba day junior feebar bi travail bi yàgg na waaye lii la yàlla namoon ci moom. Mhm. yàlla waxoon na dina dem faju ñëwaat di waaj demaat. Mhm. nii lay demee waaye dañ koy dañuy dañuy dañuy ñaax ñi nga xamante ni nii ñoo ŋànk làmb ku ci mel ni Keba Kanté moom ak ñeneen ak yeneen Papa Luc Nicolaï Papa Gaston Aziz Ndiaye ñoo ngi koy nuyu. Mhm. nañu jàppale xale yi. ñu leen di jàppale ñoo ngi leen leen di jàppale ndax nit ki ni koy jàppale du chaque jour da nga yëkkati Euh, jën jox ko na ko dama nga lekk mhm. mais defe naa ne ki ngay ki ngay jox napp jën di ko jox boo ko jàngalee ni muy nappee ëllëg su ko su la gisul sax dina mën a dem nappali boppam waaw ah, ba tax na nag war nañu ci mën a jàppale xale yi di leen teg ci yoon mhm. ba pare di leen di ñaax ñuy am métier mbëri dañoo war a am métier bàyyi ji li mhm. di xëy di liggéey mun maa comprendre nga ne làmb laay def xoolal saison ren bi ñu génn xale yu ci bari bëriwuñu 43 43 journées 20 47 euh, journées non 37 journées 23 promoteurs ñoo tëgg. ñoo tëgg te boo xoolee xaj bi xale xale yu bëri bëriwuñ. déedéet. te gis nga baa ji bi euh, ñàkk bëri xale yi. Hmm. lu ne la mën a jur ci ci réew mi. dëgg la ndax ponkal mu ne léng entraîné ba am doole. Hmm. ñu war fay nga nga nga sëgg jëflante sa nawle. Hmm. fayuñu la papa di la xaar yaay di la xaar. xale yi toog. te amoo métier amoo métier. du ma ko yeggalee waaye. dañuy dugal dañuy loo xamante ni bu ëllëgee danga naan cey su ma xamoon te fekk na béy day way muus Ouzin wax. nga xam nga ñoo xamante ni bàyyi jiitu bu ñu amul combat. seen xel mën naa dem ci lu ne. te ponkal mu ne léegi nga am doole. Hmm. ah bu ci yàlla jàppul. Hmm. mën na doxalee nee na noo xamante ni du jikkoom. ba tax na xale yi war nañ di góorgóorlu bu baax baax a baax di am métier bu ñu amul combat. jàpp ci seen métier bu ñu feebaree duñ laaj kenn dinañ jël seen moyen bopp faj seen bopp bu mënatuñu. Mm-hmm. ñi ci mën a jàpp ñoo jàpp ci bàyyi ji man daal noonu ma ko gisee man. Mm-hmm. Mm-hmm. ma ñëwaat ci keneen ki koo xamante ni bërki daanaka mën naa ni bërki démb lañ ko denc fële ca Tëngéej. muy Papa Yade numéro 2. ci ginnaaw accident bi nga xamante ni def na ko ci moto bi mu yoroon euh, yàlla suñu boroom jël ko ci. ñu bëggoon taxaw seetlu tuuti waxtaan ndax Ousseyn man li ma gis. mooy nga nekk mbëru làmb di bëri mhm. te ku ci ne xam na ni combat saa su ne promoteur da lay woo ci suuf naan la Ouzin maa ngi dox sa combat yow ak Djily Djily ànd ak ay mbokkam Ouzin ànd ak ay mbokkam te làmb jugagul ku ci nekk di def te mbër léppam secret la mhm. léegi bu ñu demee ba mbër mi di yéeg ci moto mhm. di di di di dem foo romb ñu ne mbër maa ngi ne foo nekk ñu ne mbër maa ngi nii ka lay ka yi def te làmb dafa baaxoo loolu kii day liggéey fii kii di liggéey fii ku ci nekk day def ngir combat bi am bu combat bi amee ku ci nekk day def ngir noo xamante ni mën nga am ndam ci sa kaw adversaire loolu tey bu amee ba ba mbër mi est-ce que du jot ñu taxaw seetlu ni mbëri kat ay xale lañ gannaaw la dal papa yàdda yàlla suñu borom moo ko bindoon. Hmm. dafa jiitu juddoom. Hmm. jiitu na suñu judd yàlla moo ne woon fii lay. fii lay gën a see àdduna waaye ci fii lay génnee àdduna mm-hmm. est-ce que ñun ñi nànk làmb mbëri jarul ñu taxaw seet seetlu mbëri koo ci xool rek mu ngi moto Hmm. koo ci xool rek mu ngi dawal te duñ takk casque duñu duñu duñu du maanaam duñu duñu làqatu daal ci dara loo xamante ne mbiru làmb la lan nga gisee loolu. Euh, avant tout dañ koy jaale ay mbokkam. Hmm. di wax ne xale bu am yar la xale boo xamante ni waa Tëngéej amoon nañ ci moom yaakaar. Hmm. di ko jaalee képp ku dëkk Tëngéej di ko jaale ama neex di ko jaale doomu dàngu. Coense du ma lim su ma limee damay juum. mais mën naa ne. yàlla dogal na li mu dogal mais Papa Yade dafa teel a sottile mhm. ndax Papa Yade boo xoolee six combats la def huit combats. six combats six mhm. xale yi ku ci jóg parce que boo xoolee ñi gën tëj ci làmb ji la daan boo xoolee bu mu nee deux giga na. Mhm. ah ma nee la caatu yoof xaw ma. Pape Thiam Pape Thiam doy na. su ma ñëwee ne la papa boo jënd bëgg. ak bolo mujjee daan ah. bu bëree ak ñoom combat yi nga xamante ni da ciy da koy bëree ak manière. fu laak fayda jom bu daanee bu li muy njëkk wax mooy. cant yi jàpp nañ ko. Hmm. saa bu daane boo ko dékkee ma ko li muy njëkk wax mooy cant yi jàpp nañ ko mu leen na kooku bàyyi faal la te am na loo xamante ni bëggatoon na ko. Hmm. mu dee nag bàyyi fi deewu métti deewu xale. Hmm. bàyyi fi soxna ak xale boo xamante ni dégg naa moo ngi am un an. métti lool ci xale boo xamante ni moo ngi am 27 ans. di ko jaale waa mbokkam yëpp di la wax ne nag bàyyi ji bi. gis nañ ñi di mbëri dañoo war a bàyyi xel ci lenn foo romb ñu ne yow la yow la wala moo ngi ne di dem. da ngay lu bari. bu fekkee mbër yi dañu bëgg di déplacé wu da nga war du moy surtout làmb dafa fiir mhm. tey jii buñ la gisee fii tey nga romb fi rombaat fi dañ ah fi lay romb soo amee adversaire boo xam te dëkk na fi mën nañ la fexel wala mën nañ la defal yeneen ak yeneen mais moom mi nga xamante ni mooy euh, Papa Yade mhm. yàlla dogal na mu yor moto di dawal ba yàlla def mu am choc mais bàyyi ji li gars yi dañoo war mooy li ma lay wax sànq dañoo organiser wu mhm. ndax moto ku ko gis ku ne war ngaa takk masque war ngaa takk casque di ko dawal mbéyu ci bëri da ngay romb nga leen di xàmmee war nañoo jël seeni i seen seen i avant parce que oto yi pour ñun la. Hmm. moto facilité na dem bi mais kiwul ndax boo xoolee bàyyi ji làmb dafa am mystique bu bari bu ci nekk. Hmm. ñoom ñu koy def des fois dañ koy fàtte. te ñoom seen biir ñoo war mooy li ma doon wax sànq rek ñoo war a uti lu bari bari bari. Hmm. ndax booy booy nekk ci loo xamante ni nii nit ñi dañ lay foo romb ñu ne yow la yow la yow la da nga ëytu da nga ëytu papa nag ñoo ngi koy jaay li am am na. mais mbëri baaj yi dañoo war a jël seeni seeni seeni seeni seen i seen bopp. di moytu moto yi di yëg ci oto yi. dee nag yàllaa ko yore. accident yàllaa ko yore mais yu ci bëri da ngay jël say say précaution su ma juum noonu lañ koy waxee. dañ ko war a jël ndax làmb dafa yéeme làmb nekk na loo xamante ni baaj yi doy na waar lool lool lool lool lool. Mm. doy na waar lool sax. Mm. dégg ngeen li nga xamante ni moom la Ousin jot a wax ci jàngat bi. ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax message la boo xamante ni mën naa jariñ képp kuy mbër ndax nag wax dëgg bu ñu sañoon képp ku takk ngemb dugg si ci làmb ne damaa bëgg a teral say ñaari waajur yàlla suñu borom kàttanal la ci doole la ci ba nga def ko ci ni nga ko bëggee ndax mbëri koo ci wax rek benn objectif la am mooy teral sumay ñaari waajur mm-hmm. boo waxee mu ne bëgg naa wutal sama yaay kër bëgg naa yóbbu sama yaay màkka bëgg naa am teraanga boo xamante ni képp ku ko gis day wane ni lii làmb moomu ko may te Ouzin làmb mhm. ku yaafus du ko def làmb ku ñàkk jom du ko def làmb ku nekkul bañkat du ko def parce que ñiy dagg billet toog sol lu rafet toog ci tribune bi di seetaan ñiy bëri kenn gënu ci kenn mhm. yàlla suñu borom moo lay natt mu doon sport boo xamante ni da ngay ñëw bëgg ko ànd ceeg say mbokk ànd ceeg say am di jàmm ñëw di ko def boo ci amee ndam da ngay kontaan boo ci amee defet sa xol day naqari yaag ñi nga àndal kon loolu bu amee dafa jot képp kuy mbër bàyyiwaat ci xel dafay jot képp koo xamante ni danga bokk ci làmb nga bàyyiwaat ci xel bu baax a baax baax surtout mbër yi nga xamante ni dañoo yor moto di ko dawal ci réew mi ñuy jël seeni mesure bu baax a baax a baax tey di daw ndànk ndax suñ fàllu da daan wax naan daw ndànk dal ndànk mm-hmm. mbokk yi kon boo dawee ndànk rek incha allah rabbi yàlla suñu borom dina suturaal dooleel la ba doo doo jot sax bay dal. comme boo dalee sa ndànk ngay dal te da ngay dal ndànk kon dégg ngeen ko Ousseyn waxee Ousseyn kon ma lay jaajëfal baax a baax a baax lan nga bëggoon wax ban message nga bëggoon lancer sànni ko sa dernier ci kàddu bu mujj. bàyyi ji lii di nuyuwaat ñëpp rek. Mhm. di santaat ñëpp. di wax ni appel yaa ngi jóge fu ne. Mhm. ak wasaare làmb lépp li nga xamante ni bëgg ngeen ko ci làmb te yaakaar ngeen ko ci ñu ci ci la ñuy fas yéenee dox di leen ko defal ba mu mat sëkk. Mhm. ndax Wassare Lamb yéen population bi yéen société bi yéen ko fi teg ba lépp lu nga xamante ni bëgg ngeen ko yaakaar ngeen ko ci ñun dinañ jëm doxal leen ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk. Mhm. di wax na nag mbëri ne leen saison bi tëj na waaye daanaka mel ni tijji na ngeen waaj bu baax a baax ndax saison bii ma gis ah dafa mel ni corona bi am na lu mu jot a yóbbu waaye saison bii di ñëw dafa mel ni dina leen fay wis leen. Mhm. di wax na ngeen waaj ah di sant ñëpp di ñëpp. di gërëm sama cameraman bi di la gërëm yow jii Djili hmm. yow mi nga xamante ni yaa ngi fi tey <laughs> di la sant bu baax a baax hmm. ah di gërëm ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp maa ngi gërëm ah sama jaakot soow boobu nekk ci Cambérène de neex soow maa ngi koy nuyu bu baax a baax cuun maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm sama policier bi kenn di yow hmm. policier Waly Seck bi maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm vraiment bu mag bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm euh, ki nga xamante ni mooy yaajoor joor maa ngi koy nuyu bu baax a baax ab sa maa ngi leen di sant bu baax a baax Baye ji. waaw may jaajëfal bu baax a baax a baax Ouzin ki def lii nga xamante ni boo ñëw tey fekk ñu ñu toog bu décoré bi. image bi sax dafa rafet nag Baye ji bu boole ñaari ndaanaan yoo xamante ne est-ce que xam nga ji. waay yaa ngi may laaj ni kii de su ma euh, kii la moo nekk nii. moo nekk nag. Pamor Lo moo ne ginnaaw lii li bés la ah. ba la ma diggante kan ak kan. kan ak kan la. la. ak Baboy. ñoo bëri woon combat ba benn ngi nii. kii mooy Mame Balla borom. waaye la mujj neex ja kan moo ko fi kan moo ko fi installé kan moo xool bu rafetee lii bu installé ju ko. <laughs> Euh, dañ naan fecc li bu neexee yaa jaatee ca mbagg ya. Tupi ñoo koy sant di ko gërëm bu baax a baax. ndax Tupi. kenn du bokk xel beeg xel mu sell bi xalaat bu rafet bi lépp. waaw xogalikul bu baax a baax. <laughs> kenn di ko kenn di ko baax a baax a baax soxna Tupi nga xamante ne xale bu baax la xale bu am jom la xale bu nangoo li. ak jom nga xale bu bokk ci réew mi la na bépp nawloo nañ ko ma koy jaajëfal bu baax a bu ko cëf tibb ko ma ne ak jom nga ma kenn waxatu ko. waaw macha allah yàlla jaamam yàlla. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax soxna Tupi kon jaajëf noonu lañ leen di tàggoo ba ëllëg incha allah.